bismillahi rahmaani rahim barkeb borom Touba barkeb Serigne Saliou Mbacke barkeb Wakana Haqqan li ko waral nag mooy jëm yi ñu jàkkaarlool ñuy wax kuréel Wakana Haqqan moom Serigne Saliou fii ci bërëb bu Serigne Saliou Mbacke bu tedd bii fii ci xay gi fii ci mbaaru daayira yi ñu jàkkaarloog jëmm yi tedd yi suñuy jëwriñ Serigne Bara Sow Serigne maam Serigne Saliou Ndiaye Serigne Gora Jànkat ak Serigne Mbaye Lo mi nga xamante ne ku ne xam na ko ci axlu xasida waaye nag dëgmal bis mu am solo muy ñaareelu ngont Touba bi nga xam ne dañ ko am fii ci dëkk bu tedd bi di ko amalee fii ci urum bu tedd bi di ko def ginnaaw tàkkusaan ba timis muy bisu alxuraan ak bisu xasida bisu euh, ni seen taxawaay dafa rafet lool ci dëkk bi seen taxawaay dafa rafet lool ci liggéey sëñ Tuubaa ci xasida yi ak alxuraan yi ak mbokki taalibe bi ak dimbalante ak lépp lu baax loo xam ne rek sëñ bi mi ngi koy digale ci dëkk bi ba nga xam ne dañ koo tënk si ëllësina amanu nag ñu ngi nii ñu jàkkaarloog ñoom ñu fas amal bis boobu le 19 euh, euh, ci weer wi ñëw muy 19 juillet bii ñu nekk fii ci mbaar julikaayu iid bi muy bisu wakana kan waye bisu alquran bisu sargal ñaarel ngont Touba waye di juroom belen bis bi nga xamanteni dañ koy amal Serigne saliw Serigne Bara appel baangi non lan ngeen di wax ci mbokk taalibe yi ñu wuyu ci bis bu teet ba nga xam ne waa ëxlu wakana kan lañ ko tuddé ko Serigne Bara bismillah alaykum wa rahmatulah ñu ngi jaajëfal ak suñu babakar di ñaan sun sang Serigne Cheikh Serigne saliw Mbacke sun borom yàgg lo di di sant sunu jambar yi Serigne saliw Mbacke di woo ñëpp rek ci bis bi xam ne kon ajum bii di ñëw ginnaaw tàkkusaan comme ni nga ko waxee rek euh, muy bisub Wakana Kane bisub Serigne Saliou bisub olu xasida bisub ñëpp kon daal comme ni nga ko waxee rek ngi ci woo jàmbaar yëpp rek ci woo wala olu ak fu mën a nekk rek ñu leen ci woo da ci fas yéene sant Serigne Saliou jaajëfal nag sëñ Baba Gaye taxawaay bu baax a baax a am nañ ci mbégte yàlla nañ ci dajeeg tawfeex sëriñ bi ak ndimbalam barke sëñ Tuubaa amiin amiin looy ñaanee kàddu yi ngëm ci mbokki taalibe yi xanaa di bu baax a baax rek ci bi eh, di ci mbokki taalibe yi bis bis boobu nag day bis bu feddeeg la feddeeg la xasaay boo nekkee ci di liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu ne kaay ñu soññ la eh, kon da war a gën a góor góorgóorluwaat bu baax a baax ndax bisu sargal la ahlu xasida kon ahlu xasida yëpp ñoo ko waaye nag kon bisu soññee la ci ñun bisu soññee la di ci woo bokki taalibe yëpp ci bis boobu daal nga xam ne bisu sëñ Saliou la ñoo ngi jox bokki taalibe yi kàddu bi rek incha allah kon sëñ Saliou dégg nañ ko kon sëñ góora bés bi ñu ngi la koy yëgal di ko yëgal jànkatu xas yëpp ëxlu xas yëpp di ko liggéey mboolem mburit yi mboolem jullit yi mbokki taalibe yi xam naa ni ñu ngi koy fàttali muy jeudi euh, vendredi 19 juillet 2024 fii ci jullikaay it incha allah di ko ànd ak kilifa yëpp jiital sëñ Muntaxa jiital ci mboolem njaboot Seexu Xarim waaye jiital sëñ Amdi Moodu Benn Fall ak mboolem njaboot Seexul euh, Maam Seex Ibrahima Fall yi ak mbokki taalibe bi mbokki murit sëñ Bayloo ñu ngi lay saare bu baax a baax kon xam naa dañuy bàyyi seen góor a tàggatoo ak ay xasida dañuy déglu ko mbokki taalibe bi incha allah Matala woliyo bila ma zi ri. Wala le inu ya mu bira. Bi ma ya dumu dabara. Mata wa juma'a ke yi ria. Bayina babu sigiri yi wowe ria. Anure wani redi. Bila mata tayi a wani رد لغير جهدي سيتانا من ديبل ممر والأوتانا فرع لغير جهدي لينا يتغو لخيرنا المينا عديتي من الإله والنبي كليتي سفر والصفة النبي توفيق عاد خاد والإلام خدب ديالي ما لون بيام بدلي اليوم برب الخيبو أغازني ممن خلو وخيبو لا يتوجه لناوي متبو هنيمت مكاري وتابوك سادتي بخير ما كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت سكر لي مياسر الأثير ما تارو لي بلا